le doyen Cheikh Tidiane nit ku nekk ki la yónni ki la yónni yaa ki la yónni yéen a tolloo maqaama moom Serigne Moustapha Sy moo ko yónni ci ñun Cheikh Tidiane Ndiaye. assalaamu assalaamu aleykum mbooloo mi ngeen may ma ma wax tuuti ci wolof balaa may liir motion bi nga xam ne mooy investir suñu candidat dama ñëw en tant que membre du bureau politique ñëw tamit yor mandat président du PUR président du PUR amul une semaine dajale na bureau politique bi ak relais yi waxtaan ak ñun xamal ñu ne nañu cultiver excellence ki nga xam ne pendant vingt ans yaa ngi tëjoog moom mu di la orienté yaakaar naa ne bu toogee ba xam ne mat nga li nga doon teewaayam ak ñàkk teewam amul solo li am solo mooy réussite bi kon nag ñu jàppee ne moom njabootam na ma fi taxawee képp ñun ñëpp ku nekk mënoon na fi taxaw représenté ko te kii nga xam ne tey jii moom la ñuy investir muy le professeur Issa Sall ñun ñëpp dañ ci àndoon d'accord ci bureau politique bi te tamit wóolu ko mu doy ñu moom tamit muy dox ci pensée président bi muy sëriñ Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ndax xëy na yàgg na yàggul il y vingt ans de cela bi parti bi juddoo place bii amoon na jamono ku wax loo xam ne neexul nguur gi fi nekkoon mu jëflante ko ak yow moom nag daan na wax bi nga xam ne kenn sañul wax daan na orienté bi kenn sañul orienté tey nag neex na ku yëkkati sa kàddu wax wante nag wax dafa dañ ko war a wax fi ñu ko war a waxe tey jii incha allah ci kàttanu suñu borom ñu waroon jëkkee mooy def ñaan ndax ñun bu di chrétien di jullit bi amuñu lu dul ñaan kon nag nañ ko tàmbalee ci ñaan ku nekk nga fas sa xol ñaan suñu boroom yàlla nañu àggali lii nga xam ne tey mën nañu wax ne moom lañuy tàmbali mu di dëgmal jëmpale pale te incha allah rabbi ci kattanam bu soobee yàlla le 24 dinañ ne PUR wuyu na turam ndax réew mi sonn na. kon nag ñu def boo xam ne ñun ñëpp dañuy def recueillement ñaan suñu boroom Maolana subhanahu wa taala mu defal ñu ci ndam bismillah. kon nag ñu liir motion d'investiture bi monsieur le coordonnateur national et secrétaire général du parti de l'unité et du rassemblement messieurs et madame et mesdames les membres du bureau politique national messieurs et madame les membres du secrétariat permanent Mesdames les membres du Mouvement national des femmes, Mesdames et Messieurs les membres du Pencum Pur, Mesdames et Messieurs les membres de la Jeunesse Pure, Mesdames et Messieurs les apprenants purs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des départements et de la diaspora, chers invités du monde politique, économiques religieux, de la société civile, des syndicats et des corps de métiers distingués invités. À ma qualité de représentant du président de, du PUR, en l'occurrence M. Seridi Mohamedou Moustapha Sy, le président en exercice du Parti de l'Unité et du Rassemblement, au nom de l'ensemble des militants du parti, y les secrétaires généraux des 45 départements du Sénégal et de la diaspora. j'investis au nom de Serigne Moustapha solennellement le professeur El Hadji Issa Sall candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019 dans un élan d'unité et de rassemblement dans un ensemble d'unité et de rassemblement, je voudrais appeler l'ensemble des forces vives de la nation à accompagner ce bâtisseur doublé d'un pilote dans sa noble ambition de faire décoller notre cher Sénégal pour le bien de tous. Je prie Dieu de lui accorder la force et le courage nécessaires pour la réalisation d'un Sénégal de justice de développement et solidarité afin que chaque Sénégalais puisse retrouver sa dignité d'honnête citoyen engagé pour sa nation. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais appeler le président Elhadj Issa Sall à venir présenter son projet de société au peuple sénégalais qui, je ne doute pas, lui accorder toute l'attention et la confiance qu'il faut